jëm yaa nga aneer maa ngi jëm di rap di faj samay blème teg ci di xaala xaala l'enfant chéri di ba saawoo ginne ma jombaloo gaay ni benn jinne gën la ñàng gën la tàmme dañu wàccee suñu am na kenn gis gisee kenn lépp jàmm ah sinon lépp nice ba gëj naa la gisee mais yaa ngi am jàmm bu baax mais gars nga ko koor gi kenn waaw koor gi de man gis nga nii laa koy defee gars yaa ngi si kawam ah tàng na de waaw mais xam rek mooy loolu man instant bi gars moom xamul demee gars waaye loolu teg nii di métti na mais man nag yow est-ce que li ma dal dal man koor gi bu commencé ba léegi benn yoon rek laa si bañam loolu waay su xëdd jotee daal samay ndox lay ceeb. looy teg waaw ne la waa 15 jours la tey man de moom xëdd wax dëgg yàlla du may lekk lu bëri quoi 5 kilos mburu laay jël. dèjà ñetti tamit a ñan rek. moom laa looy tëggee mais moo tax kay yow koor gi feeñoo si nii gars. non bilaa maa ngi sonn. foo ma seen damay tàkk meen tàkk meen sama xaaj doo maa ko moom su ma nekkee damay yàq meen. day kat kat biitu tente life money over bitch weddi cëgg dund lu easy. lépp jàmm sinon lépp naay ah. sax da nga koy yëg mais naka koor gi ngeen. koor gi koor gi koor gi non. yow xoolal sa waay yow. saa génn ci boppam de. ala gaal lay door melib naa yi sax mais sax foog bu toll yow wóoroo gars yi lii war nga mën a teg sax gars mais moom gars ndox bi cam ndoxam ñii gars moo dul xalaa biscuit bi si nooy teg saa yi de mu doon la saa yi coono ji gën yow moom saa yow. waaw mais saa yi jaate góor waaw golden boy. avec Cheikh Ndiaye soirée leer maa ngi jaar fi benn boy di ma taañu naa ma ma fi abi ku ci bokk soirée neex da lay dal. non koor buy bëgg a dee gën. bilaay koor gi gën ñu ngi bëgg a dee gën. waaw mbaa yéen a ngi koor gi. waaw ñun ñu ngi si toog xanaa nga laaj sa waay moom. soirée lañ fekk ñu gaaw. waaw yéen saa yi cap sa sa ndoxam yaa kii nii bu baax a gën a xam. yow lu tax wóoroo. ah mooy ah, jaaxal oh. de lan. oh. waaw gars yi toogal toogal toogal dem. waaw ñu jégalu de. non man. leen ni Sénégal ñu nu la quoi. Sénégal ñu nu la. Sénégal ñu nu nen la quoi Sénégal ñu nu nen la. waaw loolu moom mu mën la doon ci àdduna nit ki soo ko fekkee laaj ngeen ko lu tax wut. non non non xool ko insigne bi xoolal ñu leen woon. suñu woon liggéey waaw mais waaw defal ndànk rek Sénégal ñu nen la musulman yaa ngi fi chrétien yaa ngi fi ñëpp Sénégal ñun ñoo ko bokk. kër goo dem ci Sénégal boo fa duggee boo ko vérifié di nga ko fekk ñetti chrétien ak benn musulman wala ñetti musulman ndax ñun ñëpp benn lañ on est ensemble kon lu mën a doon doon doon doon doon doon doon doon war nañu xool nit ki boo dikkee fekk mu wóolu muy lekk war ngaa def très attention ci moom ba xam kii ci ban religion deuxième bi mooy lenn diine dafa bëgg nit ko maanu nit day maanu yéen ñaar al basir ak daal bu leen maanu deuxième troisième bi mooy yow li nga def maanaam man naa jàpp ni xamoo waaye tamit tegoo ko fenn nee ma ndax lan muy li nga def mooy lenn waroo woon a jikki-jikki xool place bu toll nii boo xam si ñëpp fii dallu ku nekk fii ñëw nga ñëw di fi lekk war ngaa làqatu tuut fii Sénégal foo dikk ñu may la ñu mu dugg rek ñu kii ñun ñëpp ñoo bokk ñoo ñoo bokk nday bokk baay Sénégal boo xoolee ci kaw benn bopp nga gis nga xam ne bu ne asam kon sama gars yi balante ñun ñëpp benn la mais coolu ñun suñ koor sa mu ngi doog a jéem moo tax xam ko saa ñu maye ngalax rek suñu koor gi moo jeex ngalax waaye mais nag boo bëggee ngalax foog nga bëgg <laughs>